بنعمتك خورا بلاي بنا بوزير القيرواني من سنتي على من سنتي على مكان موسوس دوما دوما يدكو رصاص سكري دفع بي خبر لك سكو دعنا كن تربي كوكو تعرف من محمد بن آه، عبد الله بن بوزير القيرواني القيرواني مرن دكتور mu ne ko sawarawu mu melal ko yàlla fil arxaami ci biiru jigéen yi bi xikmati ci xereñam yàlla moo melal doomu aadama ci biiru jigéen waaye ci xereñam maanaam nam la melalee loolu moo gën ci yow bu gàttee gàtt moo gën ci yow boo njoolee njool rek nga war a def boo xeesee xees nga war def boo ñuulee ñuul nga war a def yow sens mbindam yàlla wa abrazahu mu génne doomu aadama ci xat ak biir gannaaw bu mu ko melalee ilaa rifqihi jëm ci yaatu àdduna wa maa yasara mu ànd ak lépp lu yombal lahu ñeel doomu aadama mi risqi ci wërsëgam yàlla génnee doomu aadama ci biir bu boobu génnee ko ci biiru yaayam boobu indi ko ci àdduna bu yaatu bi mu ànd ak bépp wërsëg bu mu war a am doomu aadama ànd ak moom wax la mu xamal ko maalam yokku nu di ko xam yàlla xamal doomu aadama nu musut saa su nekk rek mu di ko xamal lu mus xam wa kaana te musu dañ fadlullaahi nga neel yàlla aziman di nga neel lu màggaale ci doomu aadama bi xam na ko xamut ko wa nabbahu mu yee bi asaari sanaat yi ci jeexitu jëfam yàlla yee doomu aadama ci jeexitu jëfam maanaam li yàlla def doomu aadama mën na cee xool jàngee ci lu bari rey gi rey suuf si nawet bi amul benn gàncax saxalaat ko lépp naat mën nañ cee jàngee ne moom mën naa dekkiku dee waadara mu dagg ngànt ilay jëm si doomu aadama ala alsinati mursalina si làmmuñ yonent yi alxeerati tànn min xalqi ci mbindéefam yàlla dafa dagg ngant ngantal doomu aadama ci nu ko daggee doomu aadama bis bu yàlla yónni wutoon yonent ci moom yowal xiyaamati bu ko yàlla waxee dara mu ne yónni woon kenn ci man waaye boo yónnoo yónantu danaa jub yàlla dagg ngant lool yónnee ay yónantu ñi wax doomu aadama yi dégg seeni téere des fi yónantu yooyu la yàlla tànn ci mbindee fi nga ne bu fi yónantu yi jugee kay xanaa mën nañoo xamaat lay ni ñun amuñoo yónantu ñu déedéet ku nekk rek mën ngaa wax ne am am nga borom xam-xam bu la jottalin la yónantu bi sallallahu alayhi wasallam wax kon kenn amatul lay ku jub alhamdulilah ku dëng nag benn lay boo mën a teg sa kanam borom. ndax yéen ne yéen tubaab fi borom xam-xam leeral lépp fa daa jubal na moom yàlla man wa faqahu kam dëppaleeg njub bi fadli ci ngëneelam wa dal la réeral na man xasalawu kam na ma gàccal gaab lii ci mandoom hmm. képp koo xam ne yàlla bëgg na koo jubal jubal na ko waaye moom yàlla hmm. koo xam ne yàlla war na ko réeral réer na waaye ci mandum yàlla hmm. maanaam ku jub yàlla jàpp sa loxo di loxo mat ba nga jub ku réer nag yàlla rek nga sànku ndax ku yàlla seetaan mënoo jub mu mel ne rek <laughs> ay nit ñu nekk ci barab boo xam ne lépp ay kàmb la diggante kàmb yi rek fa lañ mën a teg tànk diggante kàmb yi kat jokkaloowut nekk ab yoon woo xam ni dafa jokkaloo pour ñu mën a xam ne fii rek nga war a jaar ñu nekk ci kàmb yu mel noonu jaxasoo noonu biit kàmb ya safaraa fa nekk gannaaw kàmb yi nag xewal bu ne mu ngi fa booy jéggi kàmb yi yegg ci xewale mm-hmm. waaye booy daanu ci biir kàmb yi dugg safara ñu nekk ci barab bu mel noonu teg ci gumba mu lëndëm lool xam ngeen ne ku romb kàmb yooyu yegg ci xewal bi dañoo jàpp sa loxo di la yëkkati di la teg ci diggante kàmb yi ba nga romb ko dem ci xewal yi buñ la seetaanee rek booy dox dugg ca kàmb ya kenn daanewul la ne sa bopp waaye dañ laa seetaan amul ndam parce que ko dimbale jàpp ci loxom loolu rek mooy ndamam <laughs> kon ku yàlla jubal moo la dimbale rek waaye wallaay du dangaa doon góor mm. waaye ku yàlla réeral dafa taxaw seetaan la rek nga sànku <clears throat> dégg nga mm. sara yombal na al muminina jullit ñi li li solaa si jëfi texe mm. yàlla moo yombalal jullit ñi jëfi texe dégg nga baax ju leen moo dugg aljana dafa yomb ku baax ba chara ubbi na sudurum seen dënn di zikra pour ñu dégg waaraate yàlla ubbi dënn yi pour ñu mën a dégg waaraat ku baax boo ko waaree daf koy dégg mu ci xolam faa mu ñu gëm bi laa ci yàlla naata xëy di way tudd yàlla bi ay seen jum seen lamañ moxi seen di way sellal yàlla bi xol jum seen xol waa amilina di way jëfee ñu ma atarum ci la andil na leen bii ci moom rusuloo yonent yi wa kutubu ak téere mi ñu gëm yàlla tudd ko seen lamañ sellal ko seen xol di jëfee li téere yi andi ak li yonent ci wax wa taala moo ñu jàng maa àlla moom la leen yàlla jàngloo waqafoo ñu taxaw innama xadda ci nga xam ne yàlla leeral na ko loom ñeen leen li yàlla leeralal leen yàlla leeralal li mooy dagan fa lañ xem la nga xam ne nag xaraam na mu leer leen it ñu ba ko wastaxnaw ñu doylu bi ma axla ci la yàlla daganal lahum ñeen leen xam maa xarama walis la yàlla xaraamal alim si ñoom la yàlla daganal doy na leen bàyyi di xaraam amma baax bi mhm. mu ne gannaaw moom sant yàlla bi sonti bi أنا يا نبي جبر الله يا لو إياك يوصل المحرس أنا يا عيت وداع إنسان بين إن كان وحب ما أودع أنا قوت لم يدك من شرائي تايونا الله يا جبر جبر لا يوصل المحرس يوم يخمني يا مسنت ما تعرف شيري بي بين ما نسام بدين كان يجرم نار تماي بدي نبي لمن بي بير بي ñaari loxo yi sawukaay ñaari tànk dénkaane yi di juróom ñaar yàlla yàlla wëttu ba mën ko sàmm ndax ko sàmm jub mm-hmm. waxem si ma aw daanaa ñu wëttu lañu dénk min saraay ci ay ndigalam moom yàlla mm-hmm. ak ay tereem yàlla lépp lu ñu dénk ci ay ndigalam ak ay tereem yàlla ñu ko sam fen nak naka yow sëriñ ma xaras sa altari laaj nga ma <clears throat> alaktu mu dina lakkan yàlla jumlatal luñ dajale muxtasaratan luñ gàttal baar yi te guddal maanaay waaj bi xamul diyanati ci li nga xam ne dafa war ci mbiru diine maa ci lépp loo xam ne tante xu dana tudd bii ci moom alsin làmbañil moo tax taqidoo dana ko fas alxulubu xol yi moo tax am dana ko jëfee aljawaay cër yi mm-hmm. sant nga moom ma dafa téere boo xam ni baat yi du gudd bopp waaye maanaay na mën naa yaatu mm-hmm. ma def ko ci li nga xam ni dafa war ci mbiru diine li nga xam ni dafa war làmbañ war koo tudd ni ki ñaari baatu seede xol war koo fas ni ku gëm yàlla mhm. cër war koo jëfee ni ki julli ak yooyu <clears throat> sant nga ma bind ci bu maa tasilu ak la dana jokk bi waajib ci waru yi dégg nga min ci lu cër war a jëfee lépp loo xam ne cër da ko war a jëfee tam jokk ci waru gar yi sant nga ma bind ci te mooy naafile yi mu ne sunna ni mooy julli sunna yi mhm. wala boog mboolem sunna yi ñu war a jëf immoo kidaa sisni dagarii nawaafilaa go'ee fi tamoyin naafilayii warra raayibaa akkamimtee fi santa gamama binnijiif وشين سنتكلم بين سدرة من الآداب شيء تجن إذا خمن تجن لا منها شيء ورزرو ديني سنتكلم ما عندي أي تجن يا خمن له ورث ميرو ديني وجمل من دجل من أصول الفقه لسان الفقه funoon mooy masala yu mag yi banqaas yu ndaw yi sant nga moom ma wax yu mag yi comme bu lépp sant nga moom ma yu ndaw yi comme farataay jàpp yeeg euh, hmm? kon daf ko daf ala mazhab imam malik ma daf ko malik bun anas doomu anas rahimullah yàlla na ko yàlla yërëm wa tariqati ak ma jàpp li may def nag naa ko teg ci ngërëm imam Malik ak yoonam Cheikh Mouharat jàngal kat alquran lool mu bëggoon Abdullah ibn Abu Zaydin taalifal ko téere boo xam ni dana ko mën a jàngale xale yi gannaaw bu ñu paree ci alquran léegi nag mu ne téere boobu na ko def ci ngërëm Malik Malik di borom xam-xam bu mag bu ñëpp xam yolu nañ xadis ci Abu Hurayra yonent bi nee na léegi tey rek nit ñi di dóor <coughs> doqi gëlëm ngir sàkku ci xam-xam waaye duñ am mukk ku ëpp xam-xam wala ku gën a dégg fiq borom xam-xamu Medina ba te borom xam-xamu mooy nee nañ mooy Malik Sufyaan bu lañ gis mooy borom xam-xam boobu hmm. yéen su doon junj mooy Malik ibnu Anas dégg nga hmm. dégg nga hmm. <clears throat> naka wax na ne àdduna du dañ mukk jeex mukk fekk ba yàlla indee boroom xam-xam ci Medina ñuy door doq gëlëm yi ngir wuti xam-xam te kaw suuf jamono jooju duñ gis ku ëpp xam-xam boroom xam-xam Medina boobu mm. kooku mooy imam Malik radiallahu anhu xam ngeen ne kooku kenn la moom la def téere bi ci ngiram ak ci yoonam maama sahala mi nga xam yombal na sabila askal yoon lënant min zalika ci ngiram Malik min tafsir saas xëyal te ma jëlee ko ci firim way sax ci xam-xam bu bayaanee mutafaqiin ak leerlooy dégg fiq <coughs> nee na mm. lëlantu woon ci ngiram Maalik danaa indiwaale lu ko yombal leeral ko te mooy na borom xam-xam yi firee ñu ki Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Salaam Abdullah ibn Zubayr borom xam-xam yi maandu yi ak ña toppoon Maalik nañ firee leeral ko dégg nga loolu danaa ko indi ngir leeral lépp lu lëntoon ci mazhabu Malik bi dégg nga mm-hmm. ñi dégg fiqit bokk ci ngiram Malik dégg lañ leeralee masala yi lëntoon ci ngir mi yooyu danaa ko ni nekk Ibnu Qasim ak Ashab ak mm-hmm. wax dara waaye mu xaw lënt ci ñenn ñi de wala boo demee ci borom xam-xam mag yi nañ firéewaate masala moomu dana tax la Malik waxoon gën a leer naka noonu it borom xam-xam yi ngir mi nañ déggee waxu Maalik ak nañ ko leer it loolu gën a tax la Maalik waxoon gën a leer ndeke laa yaxtubu ahadukum alaa xitbati axiihi bu kenn labar fekk mbokk ma ngi labar boo ko déggee da nga yaakaar ne saa yi sa mbokk labar rek sa ñoo labar waaye fekk mbokk moom bu dee kàccoor la buy labar yow man nga droit dugg ci labar googu dem doo kàccoor ni moom fekk bañ laa wax ne la bu ci dugg mooy bañ demee ba jegewante nga xam ne ni toll nañ foo xam ne ni sori nañ waaye mm-hmm. eh, bu ko dafa wax rek yow am nga duraa wax ci yooyu borom xam-xam yi ñoo ko leeral eh, bañ mën koo dégg ruutoon loolu mu lënt mm-hmm. li maa raxibta lu tax nga sant ma loolu li maa raxibta ngir li nga xamam fii ci moom min taalimi zalika si jàngal loolu <clears throat> li di daani ñeel xale yi kama taalimum comme ni leen jàngalee xuruf alquran xaraf alquran ndax da ngaa bëgg soo jàngalee xale yi alquran ba pare nga jàngal leen xam ngir mu jiitu ilaa xuloo ñu jëm min fahmi diine laayi loo xam ne danañ ko jëlee ci dégg diine yàlla ji wa saraaya ak santaane yàlla yi luy jiitu seen xol maa la nga xam ne tum jaadale yaakaar loom ñeen leen barakatu barkeem bu tax moom dinañ sant loom ñeen leen aqibatu mujjam bëgg nga soo jàngalee xel yi alquran nga jàngal leen xam-xam ngir ñu mën a dégg yàlla diine yàlla ji dégg diggale yàlla yi ak tere yi xam ko hmm. ndax loolu buñ ko déggee lay jiitu seen xol te mooy xam-xam boobu dana nekk loo xam ne danañ yaakaar ne ëllëg dana leen andil barke dana leen andil mujj gu rafet kon bëgg seen xol lu leen andil barke di leen andil mujj gu rafet jiitu fa te mooy dégg diine yàlla ji ak ndigalam yeeg tere mi moo tax ñu bëgg leen a jàngal loolu waajab tukku mu wuyu ci loolu raaj li ma rajowtuun li ma yaakaar mm. li naf si ñeel sama bopp wala ka yow sëriñ mu xaras liñ sawaab bi man àllama ci yoolu ki xamle dina laay dina yàlla jaw daawal moo téye jëm si moom mm-hmm. ma nangu la li ma sant te mooy taalifal la téere boobu nga di ko mën a jàngale ngir yaakaaral sama bopp yoolu ki xamle diine yàlla ji yaakaaral la yow yoolu ko xoote jëme ci xamle diine ma ko kon man bu ma xamlee yow da nga am yoolu ko xoote ci xamle diine yàlla ji te ba nga mën a baax yaa ngi moom yéene yam ci jàngale nag xamle diine yàlla ji ak gindi nit ñi mooy xewal gi gën a mag ci àdduna yonentu wax na ne yàlla jubal benn nit ci yow moo gën àdduna ak li ci biiram nee na ku jàng benn bunt ci xam-xam ñu jox ko yow la juróom-ñaar fukki yonent mhm. ndeysaan beneen riwaaye mooy ñu jox ko yow siddiq mooy wëlli yàlla yi mag yi yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne yàlla dafay wax kii jihaad ak kuy jaamu yàlla yawmal xiyaamati ne dugg leen aljana borom xam-xam ne yow yàlla siñ xam-xam de ci lañ xamee jihad siñ xam-xam ci lañ xamee jaamu yalla bu mën a jaamu yàlla ñun kon lan la ñam yalla ne yende de yéen a ngi mel sama yenn malaaka yi ram mu len ñu len neex ci sama jaam comme ni ngeen la non jangale ci aduna di leen yar di leen xamal luñ xamutoon tey dañ leen may ngeen ramm len dugg leen aljaan <coughs> yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne amu kenn ku xoote jeme ci njub lu moy dina am ci ña ñako top dañ ne ko topp seen tiyaaba dara du ci wàññeeku yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ku dikk jàkk ngir jàng xam-xam wala jàngale ko buy dellu dafay ànd ak tiyaaba gu bari ba mel ni ku doon jihaad ci yoonu ya yàlla képp ku dee dikkal fekk mu ngi jàng xam-xam digganteem ak yonent ci benn daraja rek moo cee dox daa leen jege lool dégg mm-hmm. nga kon jàng xam-xam tiyaaba gi ci nekk yàlla rek moo xam mu toll hmm. ibnu xaasim daan na wax ne buñ tàgguwaan Malik def ñu wax naan ragal leen yàlla da tasaare xam bi ci diggante nit ñi ko nëbbu bu leen nëbbu xam-xam hmm. di wax nee sarax bi gën mooy nit ki jàng xam-xam dem mbokkam jullitam daan sax ñaar rek lañ war a xañaane ku yàlla jox alal añaan gën a na musi añaan dëgg waaye ñeete ñaar lañ war a ñëwee mooy ku jox alal mu di ko def ci lu baax kooku war nañ koo ñee ak koo xam ne yàlla jox na ko xam-xam mu di ci àtte di ko jàngale yonent bi sallallahu alayhi wax ne kii borom xam-xam ni mu gënee jaamukat yàlla mu ngi mel ni man ni ma gënee ki gën a xees ci yàlla ak malaaka yi waa asamaan ak suuf ba ci melentaan bi nekk ci paxam ba ci jën ñaanal jàngalekat bi lu baax kon tiyaaba mm-hmm. googu ma yaakaar yaakaaral la ko ma waral ma taal téer bi waalam xamal ana xayral qulubi ne gën ci xol yi awaa mooy xol bi gën a mokkal l xëyri ñeel xam-xam waar jël xam-xam maa mooy xol bi nga xam ne mees pex jiitu asharu xay ilayhi jëm ci moom xol bi gën ci xol yi mm-hmm. mooy xol bi gën a mokkal xam-xam xol bi ëpp xam biñ gën a yaakaar ne mooy ëpp xam-xam nag mooy xool boo xam ne xay jiitu su mooy xoolu xale kon xale mu lañ gën a yaakaar ak njàng ci moom moo tax dafa téere bi fexe ba jàngal ko xale yi dana nekk lu am njëriñ waaw laa maa xun yee li gën a yee ci ne xam ne sonnee xon na bii ci moom naa si xon way laay biiri wa raxiba tam xemam yi ajili ci tiyaabaam raaxi bu na way xemami isaalul xeyri mooy jokkale xam-xam ilaa xulubi awlaadil muminina ci xoli doomi jurit ñi mboolem ñi laay biir lañ gënoon a yittewoo gën cee sonn waaye lañ gënoon bëgg tiyaaba mooy fexe ba jokkale xam-xam ci xolu doomu jullit ñooy laay biir loolu lañ doon digal nit ñi fexe leen jàngal doomu jullit ñi ñu doon wut tiyaaba ci loolu lañ doon wut tiyaaba tax ñu bëgg leen a jàngal lee sax ngir mu sax fiaa ci xol yooyu moom xam-xam dégg nga watan bium ak xeeleen lañ gënoon a yittewoo it mooy xeeleen ala maalimi diyaanati ci xam-xami diine wa xuduudi shariati ak frontière sharia muy frontière sharia yem loo li raadu ngir ñu tàggatu alayha ci sharia boobu wa mu ak ci lépp loo xam ne war na leen an ta'taqidu mu fas ko mën a diine ci diine qulubuhum seen xol ba taxawul mu jëfe bii ci moom jawaarim seen cër mm-hmm. lañ leen yittoo ñoom ñii laay biir di ko digal nit ñi ñay bëgg tiyaaba lañ loon yittoo di ci wut tiyaaba mm. wala boog lañ gënoon yittewoo mooy fexe ba nit ñi xam-xam-xamu diine xam fi ne cariyaayam boobu ñu tàggatu ci balaa ñuy mat mu kallaf dégg nga ñoom xale yi waaye lépp lu ñu war a fas seen xol cëri war koo jëfee ñu teel koo xam teel see tàggatu balaa ñu nekk mag hmm. ndaw moo gën a yeeyoo jàng hmm. tax ñu baax ñu daan wax ndaw moo gën a jege xay ndax xolam matagut buñ sonnut ci moom yee ko rek bu màggee mën naa màggaale jikkooy ndaw nga xam ne yaram wi màgg na waaye xel mi màggagut roo gi màggagut mu nekk mag waaye fekk ndaw la soo waa gi xew ci àddina kenn du xam nu toll mm-hmm. daanañu wax ne ndaw wala sax parce que nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne moo ne ndaw ab ceet la ci dof xaaj la ci dof rek <laughs> ab xeetu dof la rek mm-hmm. ndaw bakkan daf koy not seytaane di ko not ñàkk xam-xam di ko not ñàkk xel mu mat di ko not loolu waral kilifa yi war fexe ba seytaane boobu nekk ndaw ñàkk xam-xam boobu nekk ci ndaw bakkan boobu not ndaw mu di ko topp xel mu gàtt moomu nekk ci ndaw ñu fexe dindi lépp fexe xelam gudd ci yee ko fexe seytaane mu di ko moytu ci jàngal ko fexe bakkanam yaru ci yar ko fexe réer gi nekkoon ci moom dañ ci xamal ko li war a xam dégg <coughs> loolu soo ko defee <coughs> eh, da nga leen jëriñ bokk na ci li gën a baax ci yar ndaw nag mooy nga fexe moom ay xarit yu baax mm. yonent wax ne nit ci diina xaritam lay nekk kon kenn ku nekk ci yenn xool kan lay xaritoo dégg nga daan wax ne nit ku nekk rek na xaritam mel noonu lay mel kon ku nekk ci yéen na xool kan lay xaritoo ki nga ànd daal dafa mel ni danga ñëw sa yére rek daax ko fa xam nga daax léeg nga am ab yére def ci beneen couleur mm-hmm. dégg nga sa àndoor daal mu mel ni rek la nga def ci sa couleur ku nekk war naa xool ban couleur lan lay def ci couleur yéreem lan lay def ci yéreem mm-hmm. ñëwee ko ko wala mu daaxee ko ko boo ko ñëwee lu sant lu ñaaw mu ñaawal yére ba yibal ko rek boo ko ñëwee lu rafet mu taaral yére ba rafetal ko bo amé xarit bu bon mu ñaawal sa image ay bal la bo andé xarit bu baax mu defar la mu defar sa image taru ko kon ñu war nañoo fexe ndaw ñi di am àndandoor yu baax fay no naka li am baam am robee ne tam nañ naan taalima sixaar na jàngal xale yi ci kitaabillahi ñeel ci yàlla ba yutfu fu day fay xadaballaahi meram yàlla dégg nga wax nañ ne wax ji si yonent bi sallallahu alayhi wasallam la jugee ñii ne ci àlliin radiallahu anhu la jugee dégg nga mm. waaye ñi ne même bu jugee ci àlliin nit xam nga ne lii kenn mënu koo xam ci sa xel kon mm. dañu jàpp naa li ñu ci yonent bi la ko la jëlee mm. ndax boo xeloo xam ni xel mënu ci at dañu jàpp ni ci yonent bi la jógee te mooy xamal xale yi téere bi yàlla bi mu di alquran nga xam ne moo gën a tedd ci mboolem téere yi wàcc asamaan dafay fay merew yàlla am na yenn xadis yi yonentu wax ne ku mokkal alquran jox nañ ko ñetteelu xaaju nubuwatu maanaam boo xaajoon nubuwatu ñetti xaaj benn xam xam-xamu nubuwatu boo xaaj ñetti xaaj benn xaaj bi jox nañ la ko yow mokkal alquran maanaam lépp ci alquran jooju boo góorgóorloo rek yegg foofu dafay fay meram yàlla mooy jàngal xale yi alquran dafay fay meram yàlla xale yi nag liñ ci namm mooy doomu jullit ñi ndax Malik daan na wax ne bul jàngal doomu xebeeri alquran dégg nga mm-hmm. bu leen jàngal alquran kon doomu jullit yi jàngal leen alquran dana tax meram yàlla dañ nettal nañ ne xale yi nekk ci daara ya ñooy rammu mag ñi nga xam ni dañoo bëri bàkkaar mag ñi bëri bàkkaar la tax yàlla mbugalul leen xalagul leen mm-hmm. mooy xale yi nekk ci daara ja kon boo bëree bàkkaar bu ci boole mukk di xeex xale yi nga xam ne ñooy jàng ci daara ji ndax loolu tax am jàmm nett nañ ne nit ñi danañ dem ba mu yàlla war a wàcc ci ñoom ndax bakkaar yu bari ak ñaawteef yu bari yàlla xool xale yi ci daara ja daal dindi mbugal ma seen kaw ci barkeeb xale yooyu mm. nañ ne nit ñi buñ demee ba seeni bakkaar toppalantoo suuf si lëndëm lool ndax kàccoor yu bari yu jaam mooy xërëm su yóotal safara mbugalam yàlla war wàcc yàlla dafay xool kàdd xale yi nekk ci daara ya ak noddkat yi nodd ci kaw soro ya mu daal di yërëm nit ñi dindi mbugal ma ñooñu ñooñu ñooy xettale xeet yi loolu la alquran wax su nekkutoon yàlla dana jañee mbugal ci walis dana jañ mbugal dàqal ko ñenn ñi ngir ñenn ñi ko suuf si yàq am na ñu yàlla xool baru see leen ñi des waaye bul toon loolu yàlla xalak na ñëpp wax na taalimi shey naka xamul dara fi sixari ci ndaw ka naq si comme rëdd fil xajari si doj jël ay xale jàngal leen alxuraan mu ngi mel ni rek danga dem <clears throat> ci ab doj boobu nga rëdd fa ni nga xamee ne rëdd boobu dafay des du gaaw a faar ba mukk boo jàngalee xale ba mokkal ko noonu lay mel ab rëdd nag ci doj xam ngeen ne boo ko boo ko bàyyee noonu puusare beeg lépp di daanu ci kawam dana dem ba rëdd ba muuru di la faaruwut ndax boo indee puusare bi rek fekkaat fa rëdd ba waaye mën naa muuru bu puusare bu bëree mm. kon ay xale buñ leen jàngalee alxuraan ba pare jàngal leen xam-xam waaye ñu wëlbatiku woon gannaaw loolu lépp caaxaan di fo mën nañoo mel ni ku fàtte waaye fàttewuñ bis buñ dindi bàyyi seen caaxaan yooyu jubluwaat ci alxuraan rek lañ mokkaloon lépp daal di ñëwaat mm. <coughs> loolu wax ne jàngal xale ci ndaw mu mel na rënd ci doj bu wow moo tax ñu gën a war a yittoo ci jàngal xale yi jàngal mag nag dañuy wax ne mu ngi mel na rënd ci ndox waaye demeewul noonu ndax sàkku xam-xam minal mahdi ilal lahdi ba ma juddoo ba ni ngay génne àdduna kon yonent tënkul ne ndaw rek war a jàng mag waru jàng ñëpp mën nañoo jàng ku jàng da nga xam di la jàngam ndaw mooy gën a sax njàngam mag <coughs> ndax mag it mm, soxla yu bëri nekk ci bopp bi man na koo yàqal dégg nga loolu waral ñu bi ay daara di jàngal xale yi ki njëkk a jàngale nag ci daara war boog ki njëkk ubbi daara ki njëkk jàngale moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo jàngal ni ñu alquran waaye ki njëkk ubbi daara dajale ay xale di leen fa jàngal ma ma nga digaloon mu jàngal leen Amir mooy sëriñ daara bi njëkk jël Omar ibn Xataab moo njëkk a ubbi daara Amir Omar mu ngi ko doon fayee xaalis bi ñu jëlee ci Baytul Maal ba xaalis Baytul Maal la doon fayee la doon fayee moom Omar ibn Xataab Amir moomu xale yi amoon ñu ñàkk xel ak ñu am xel waaye Omar da daan wax Amir ne ko dégg nga ki nga xam ne ni dafa gàtt xel bindal ko ci aliwa ki nga xam ne dafa am xel waxal rek bul bind waxal rek dana mokkal mu lay wan ne xel yi wute nañ lool. ndax jamono jii ñu toll borom xel yi lañuy bindal pour ñu mën a mokkal waaye néew na koo xam ne da ngay wax rek mu mu capté mokkal loolu moom néew na léegi bëreetul dégg nga mm. waaye fo jamono jooju Omar dafa santoon Amir bin Abdullah al-Xuzaayi ne ko ki am xel waxal rek noonu sax ko waaye bul bind ki amul xel nag bindal ko pour mu <coughs> jàng ko ba mokkal ko dégg nga mu ko doon fay ci baytimaal Euh, baytumaal xam nga ne àll juri ñëpp ko bokk te juri ñëpp la seen doom nekk ci daara ja waaye teewul daan na jël ci àll jooju rek nga xam ne ñëpp ko bokk di fay sëriñ daara ba di wane ne sëriñ daara buy jàngale juri ñëpp ñoo yeyoo fay fayam ñoo yore fayam la yàlla ci moom daal ci fayam loolu juri ñëpp la war bu ko ñenn ñi taxawee nag mu wàcc ñi des rek waaye teewul ñëpp la war rek mm-hmm. Omar day xam xam ne xale daf mën a mokkal mën a takk am na mbir yi nga xam ne dafay ragal ne bu ñu mën a yàggee nit ñi danañ ko fàtte woon ko gannaaw hmm. mu di ko seedaroo xale yooyu ni ki kilifteef ak yu demee noonu daan askan ak yooyu yëpp daan na ko seedaroo laaju ci yooyu daan na ko seedaroo xale yooyu ngir bu jamono yàggee bu ko nit ñi fàttee fekk xale yooyu fàttewuñ ko hmm. moom xamoon na ne xale lu mën a takk la benn bis xale yi dañ koo laaj ne ko daal bëgg nañ nga may ñu ñu xaw a feex tuuti ndax jàng mi dafa métti omar digal jàngalekat bu muy abd amir bin abdoulaye ne ko na leen jàngal gannaaw buñ dilee suba ba yor yor jot ñu noppaloo buñ noppaloo bañ julli tusubaar ñu commencé waat jàng ba takkusaan li des ñu noppaloo ko kon ñoom loolu lañ daan jàng buñ dilee suba ba yor yor ñu noppaloo daal di julli takk tusubaar commencé waat ba takkusaan ñu noppaloo waaye nag xale la ñoo xam ne xel yi ñu yore woon daf mel ni xarita yi yoruñ yooyu yooyu la xel benn bis Omar dem saam jamono ba mu koy ubbi ba mu ubbi dem na fa sax fa weer medina na mu ko lool ba muy ñëw medina nag ñëpp génn yëg ne Omar a ngi ñëw ñëpp génn dajeeg moom waaye dox nañ lu mat bis door a dajeeg moom muy alxames alxames bi yëpp dox nañ ko daal di dajeeg Omar fanaan ak moom bañ xëyee bisu àjjuma ñu ñëwaat Medina àjjuma gi jeex dégg nga ñu sonn lool ci dem gak dikk gi Omar gis na alxames gi jànguñ ko àjjuma gi jànguñ ko mu ne nañ koy noppalu ñaari bis yi dañ koy noppalu loolu nekk mujj sunna soo xam ni daar yëpp nga koy topp ba yomal xiyaamati Omar ñaan yàlla ne képp koo xam ne dundal na sunna soosu mooy di noppalu alxames ak àjjuma yàlla defal ko yiw waaye képp koo xam ne rey na sunu soosu muy jàngale alxames ak aj moom mu di ko jàngale moom bañ koo noppalu yal na yàlla xatal wërsëgam mm-hmm. loolu ci ñaan dégg nga moom Omar ibnu Xataab radiyallaahu mu ne waxat masaltu misaal naa mm-hmm. naka ci loolu maa la nga xam ne yéen tafoona danañu jëriñu inchaa allahu nem soom na yàlla bi xib ci mokkal ko waaye sufoon danañu tedd bi an mi ci xam ko waaye sax moom danañ texe benn tiqaar yi ci fasko ko wala mu ak jëfee <clears throat> bii ci moom. la ma la sartaale danaa la ko andil ci téere bi dégg nga andil naa la ci loo xam ne xale yi buñ ko mokkalee danañ ci <clears throat> jariñu ndax xam-xam ku ko def wëttu rek mu jariñ la danañ ci tedd buñ ko xamee te jëfee ko xam-xam xam ko rek du la andil benn teraanga dégg waaye xam ko jëfee ko loolu moo lay andil teraanga mhm. jëfee ko mooy topp ndigal yi bàyyi tere yi loolu moo lay andil teraanga àdduna ak alaxira mhm. waaye xam-xam boo xam ne borom jëfewut ko mhm. amul benn njariñ dafa mel ni rek garab gu amul benn meññet bu la mënee keral it du la may loo lekk ndax benn meññet dégg nga mën na laa dimbale ba nga jàng waaye moom du jëriñ boppam mën na day jëriñ nit ñi waaye du jëriñ boppam rek comme soñ rek di lakk boppam di leeralal nit ñi <coughs> dégg kon xam-xam bi nga xam ne mooy jëriñ nit di ci jëlee teraanga àdduna ak laaxira mooy xam-xam bu ñu jëfee mm-hmm. borom xam-xam malaakeeg ñëpp dañuy toroxlu ci kanamam mm-hmm. di ko màggal benn kenn ci borom xam-xam yi daan na wax ne ku mokkal risaala risaala doy la waris beneen téere bu dul risaala boo bëggee beneen téere bu dul risaala hmm. risaala nekk bunt bu lay yeggale ci moom kon maanaam daf du téere bu xam njëriñ boo xam ni boo ko mokkalee hmm. dëgg-dëgg am nga dëgër ci wàllu fiq boo bëggee yokk sa xam-xamit lañ jàngoon téere boo demee fekk mu risaala jàngaloon la ci dara dina jàngaloo doon lépp kon hmm. dana gën a yomb dégg nga moo tax eh, mu ne indi naa xam ni buñ ko mokkalee di ko jëfee xam ko danañ ci teddee danañ ci amee yàlla dégg mm-hmm. waaye ko am xam-xam du xudoo ci lu mooy taaru àdduna yow xamul ku la gën a tan mbugal fa yàlla moo tax soxna daan la wax ne ma dem di tëgg di way di musique ñi may fay xaalis may lekk moo ma gën a mukk may bëggoo diine ñi di ma jox xaalis boobu ma di ko lekk ci turu diine ndax mbugal mi nekk ci lekk ci wàllu turu diine moo gën a métti foofu bëggoon mu nekk ci tëgg ko fecc ñu di la fay dégg nga waaye sax doon danañ texe bi nga texaar yi ci fas ko war a amal ak jëfe bii ci moom xam-xam boobu bu ñu ko jëfee daal fas ko danañ ci texe comme noonu ñu ko waxee waxat jaa dikk na ñaan yow moo nañ digal xale yi bi salaat si julli li saban sinin na bu ñu amee juróom-ñaari at way dor boo nañ leen dóor xale ci bàyyi julli li ansin bu ñu amee fukki at ñun tuaan wax ne leen seen xale yi waaw ñu julli bu ñu amee juróom-ñaari na ngeen leen bu ñu bañee julli bu ñu amee fukki at na ngeen teqale diggante xale yi ci barabu tëdduwaay yi dégg nga mooy di ne leen dóor alayha ci julli bàyyi julli li asli bu ñu amee fukki at wayu faraq nañ teqale bay dem seen diggante fil ma daaje ci tëdduwaay yi diggante xale yi eh, <coughs> nañ leen teqale mu bokk fu ñuy tëdd mm-hmm. dégg teqale diggante xale yi teqale diggante xale ak seeni xale yi bu ne ba ba ba am euh, <coughs> juróom-ñaari at nañ leen digal ñuy julli nañuy fexe buñ bokk fu ñuy tëdd loolu dañ ko sopp nga fexe ba yow kilifa gi xale yi buñ bokk fu ñuy tëdd li ñuy bañ mooy euh, ñu yaru rek ci jikko yoo xam ne dana suufe ndax bu ñuy bokk fu ñuy tëdd di takalo di sësaloo man ñu dem ba def yeneen yoo xam ne nii danañ ko miin mu nekk jikko joo xam ni daf leen topp bu buñ màggee duñ ko mën a ba su boobaa loolu yàq leen moo tax ñu sib boole xale yi ci benn barab bu ñuy bu ñuy tëdd dégg amma bu fekkee ay mag la moom ay mag moo waru ñoo sësanti ñoo war a soree tuuti waaw ay mag sa haram ci ñoom ñu sësante seen yaram yi sësante amma ay xale ñu sosante moom loolu dañ koy sib li mooy seen diggante na am espace ñu sore dégg nga foog zaaka naka noonu yéen bëxi dana yàlla an yu ñu jàngal leen maa farada farataal ko allah yàlla alal ibaadi ci jaam yi ñu xawriñ ci wax waa amalin ak jëf xale yi war nañ leen jàngal lépp lu yàlla farataal ci ñoom ci wax ak jëf qabla bulooxi mu njëkk ñuy mat mukallaf li atiyeeg mu dikkaale suñu al buloox ju baax waxat tamakkana fekk dëggal na zaalik min qulubim seen xol yi wasakana dal na ilayhim seen anfusum seen bakkan yi nañ fexe jàngal leen ñu war a xam li ñu war a xam yépp balaa ñuy mën mukallaf ndax bis buñ matee mukallaf fekk nañ waroon a xam xam nañ ko xam gu dëggal ci seeni xol waaye seen bakkan miin na ko ba mën nañ koo jëfee dara dootu leen jaaxal waaye ni sax miin na bi maa yàmbaloon ci li nga xam ne war nañoo jëf bii ci moom min zaalika ci mbiru diine yooyu ji waaye doon seen cër yi dañ leen ko teel jàngal teel leen cee tàggat ñu di ko defaale ndax balaa ñuy mën mu ko la fekk seen cër yi miin na ko waxat farada farataal na allahu yàlla subhaanahu tudd nu ma selam ala xulubi ci xol yi amalan jëf mi ne ci pas-pas yi waal jawaari ak ci cër yi zaahira yu feeñ amalan jëf mi ne taaxat ci topp yàlla <coughs> yàlla farataal ci xol yi <coughs> ñu jëf yi topp yàlla te mooy ñu fas ko ci seeni xol cër yi feeñ sant na leen ñu yëpp ñu fi topp yàlla mooy mboolem ñu leen digal rek julli yeeg wooreeg léegi aj makkeeg yooyu yëpp yàlla sant na ko doomu aadama mu di ko mu di ko def woto bu fasul dana teqee lakk ñeel la maa li nga sartal naa lakk ñeel la zikru ak tuddam baaban baaban bunt par bunt li yàqur ba ngir mu jege in fahimil mutaallim yi ci dégg kuy jàng incha allah na som yàlla taala kawna waaye yaa moom yàlla dong saxir la ñuy tànnaloo bii moom dong na saxir la ñuy dimbali ko wala xawla dit pexe wala quwat dit kattan illaa billaahi la muy ci yàlla alaali yi bàyyi kawe alazim yi bàyyi mag nee na la ma nag danaa ko def buntu par buntu ndax mooy tax jàngkat bi mën ko gaaw gën a gaaw a dégg ndax bu ñu waxee buntu sàngam boo bëggee laaj ci masala mu aju ci buntu boobu da ngay ne buntu boobu rek xool ko fa waaye bu ko defee bunt par bunt da nga yàkkamti gaaw jeexal buntu euh, toppaat beneen bunt dégg nga loolu mooy gën mu jël téere bi rek daf ko nun benn yoon wutul kay bunt soo waa xool ci masala dafay jafe jàng yi dafay yokkal loo ni daf koy tayal loo yàlla rek lay tànnaloo ci may def moom lay dimbali ko amul benn pexe kattan bu nit di am lu mooy ci yàlla amul benn pexe ba mën a topp yàlla wala ñu am benn ba mën a bàyyi moo yàlla wala ñu am benn kattan ba topp yàlla lu moo yàlla dimbali listixaar moo di tàngaloo ñu bëri dañ koy dégg rek te xamuñ ko jàpp nañ ne daal listixaar mooy nga dem ci ab gisaanikat mu suba nangam nangam moo war a xew uññu xeetu yàlla yëg yooyu loolu du listixaar loolu bidaa la xeetu la listixaar mooy li ñu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngal te mooy tànnaloo yàlla yàlla tànnal ma li nga xam ne moo gën loolu rek mooy mooy listixaar gis li ñëw subaag yooyu yëpp loolu loolu aju jot mot ko ci waaw waaye nag am na ñoo xam ne nga waxoo leen lii mooy xew suba nii la war a demee rek jàppal ne dafa ko listixaar loolu du listixaar listixaar yi yonent bi jàngal <coughs> saxaaba yi nee yonent daan leen daan na leen jàngal listixaar comme ni mu leen jàngalee saari alquran hmm. mu ne bu ngeen bëggee def dara ak képp kuy julli rek boo bëggee def dara na nga julli ñaari rakk yu bokkut ak ñaari rakk farat benn rakk bi nga jàng fatiha xul yaa kaafiruun benn rakk bi nga jàng fatiha qul huwallahu ahad dégg su ko <coughs> defee nga jàng ñaan gi boo sëlmalee nga jàng ñaan gi allahumma inni astaxiruka bi ilmika yàlla ya maa ngi lay tànnaloo ci sa xam-xam wa astaqdiruka bi qudratika maa ngi lay ñaan kattan sa kattan وأسألك من فضلك العظيم علي أن تسني المغرب فإنك تقدر ولا أقدر يا من من منما وتعلم ولا أعلم يا خم من خمما وأنت علام الغيوب يا خم ينبو اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه دائما واجلي واجلي دنا فقدره لي نون لا اللهم ان كنت من اعظم خير لي في ديني ومعاشي وعقبة امري واجلي واجلي فقدره لي يلا فك خم نغن مبير مي مو گن سي مان سما دين اك سما دوندو اك سما كوما سما مبير اك سما مجن مبير يالا نكو دوغال سي نو موم نك بروم تيري دا فا يق فيه ne yàlla yàlla nga ma ko xeeñ loolu danseur yi ñu seetluñ ko mm-hmm. dégg nga fii si charo fois kiw dawaan ni mu ko defee nii noonu yàlla nga ma ko dogalal mm-hmm. wa in kunta ta'lamu anna haadha al-amra sharrun lii waaw bu moom mm-hmm. bi fi diini wa maashi wa aqibati amri wa ajli wa ajli fasrifu anni wasrifni anhu waqdur li al-khayra haythu kaana summa ardini bi yàlla bu fekkee gis nga ne mbir mii may dugg xayla si sama diine ak sama dund ak sama commencement mbir ak sama mujj mbir yalla nga ma dàqal mbir mi soril mako mani yalla sori mbir mi mbir mi sori ma ta nga dogal mo lu baax fu meuna nek ta nga dimbali nga buma gërëm lolu nga dogal so waxe ñaan gu ba pare nga tuddu sa aaje bu mu ñaan gi ene yalla yalla nga ma tanal li gën bo defé nga tuddu sa aaje man nga ko def juroom ñaar yoon ndax anas wax na yeen yéen su def ko wax ne ko boo yittoo ben mbir da nga lo sa borom juroom ñaar yoon so ba nga xol sa xol jublu rek defal lolu lolu moy li gën ci yow rek moy li nee na moom yàlla rek lay tànnloo dégg nga xam ne it amuñ benn pexe ba bàyyi moo yàlla amuñ benn kattan ba topp yàlla lu moo yàlla dimbali ñu loolu ñaari baat yi muy laa hawla wala quwwata illa billahi al azim njëriñ rëy ci ñu ko sowta rek laa daan wax ne hmm. danañ yooyu mu ne man wax du ma la jàngal firim baat yi ma ne ko akay ah, jotee naa la sama yaay sama baay yow yonent ci yàlla bi mu ne laa xoola mooy mënu ñoo mucc ci mooy yàlla lu mooy yàlla dimbale ñu wala quwwata muy ñoo xam kattan ci topp yàlla lu mooy yàlla dimbale ñu noonu la ko yonentu firee ba pare ne ko nii la ma ko jibril jàngalee jëlee ko ci yàlla hmm. kon loolu yàllaa ko firee noonu yonent bi jot nañu ko yonent bi daan na wax ne da hmm. ngeen bëri wax laa hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim ndax dafay dàq juróom-ñeent fukki eh, musiba ak juróom-ñeent vingt bi ci gën a tuuti mooy ak ndof dégg nga ak ndof musiba yi muy dàq yi mu lay dàqal bi ci gën a tuuti mooy ak ndof nee na danañ ko takkoo dégg nga waxaat na beneen yoon ne bëri leen li ngeen di wax laa hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ndax benn namb la ci nambi aljana yi denc la ci denc aljana yi ku am denc ba aljana nag wala ku koy takkoo mooy ne yow aljana mooy sa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ne ku yàlla jox xewal mm. nga bëgg xewal ga des البري لا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كن سوق سيام كول بن مدم بري الباربو أو فبون مايك نحن بمنوني جابي لا حول ولا قوة إلا بالله هكلا نوح هي كان جن ما هي وان دال دتاج ورد مدال دي جن جل سين جلم جب بد نيو سمرك مكحول دان نوح نه كوا لا إله إلا الله قوة إلا بالله العلي العظيم يالله شغل كو دندل كو جرم نيار فكيم buntu ci bunti lor lor wu ci gën a tuuti mooy ñàkk la hawla wala quwwata illa billahi al azim mu ngi noonu lu am njëriñ la wasal yàlla doole xolal laaw yàlla ala sayyidina suñu sang muhammadin muhammad nabi ka yoonul toom waa yàlla ñu leen wasal bi ak sahabaam wasalama doole li musal tasliman ak musal kasiran gu bëri yàlla yàlla doole xewal suñu sang muhammad mm-hmm. sang mooy koo xam ne moo la jikko ki gën a mat soxla ko ko mooy sang yonent bi sallallahu alayhi wa sallam وحنا أنا سيد ولد آدم ما يسمو دوم آدم يب وحنا شي دوم حسن إن ابني هذا سيد سما دوم جي سنغلا وحنا جي سعد نقوم لسيدكم جبلين نسين سنغ بي جي سعد كون سنغ ما يكي الكامل المحتاج إليه رك كي مت كي سوحلو يعني يالو دولي خول كي نخم نمو غير مت نيب تما يرنتي بسلاء السلام أكي نيرم أغي صحابا وسلم أبدو للمسل تسليما كثيرا مسل غبري ولا حول ولا قوة إلا بالله العالمين